ak lu mën a xew du génn Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mooy Porokhane nag la ñu woote daaw waxoon nañ ci soxna Jaariyatullah loo xam ne neewoon naa bu jigéen ñi doo nga war a roy ci moom képp kuy doomu aadama te bëgg lu baax rek war ngaa roy ci soxna jaara ndax lu baax du góor a ko moom du jigéen a ko moom ba muy sàkku la muy sàkku bu ni rek damay jigéen damay sàkku ak njaboot ngir mën a am loolu ngërëmal yàlla la ci jiitaloo te ngërëmal yàlla loolu defe naa képp kuy doomu aadama mooy li la war a yitteel soxna jaareetullah ni ma ko waxee woon daaw répétition lay doon rek ndax xëy na am na ñu fi nekk ren te nekkuñ ci woon daaw buñ la koy portéleel sax ab meer lañ lay dessiné te fanweeri at ak ñett dong doon dund xoolal way wure yi nga xam ne am na ko mooy jenn jigéen ju am màggal loolu dégg ngeen ko xooleen poroxaan na muy mel léegi sàkku ngërëmal yàlla rek a ko mayoon loolu ndax nah, am na sax ñi nettali ay xisa naan ba muy ñëw kër sëñ Mor Anta Sali dafa ubbi kaamilu alxuraan bi yam fi suñ borom di wax ni beneen yeneen te doonul ñëw ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni bu dul woon lii suñu borom wax fii ma ni fa ma jot danaa fa jur yeneen waaye danaa fa jur koo xamante ne bii jant lay doon tiim àdduna bépp baa mu doon ab weer di leeral àdduna bépp waaw loolu lenn rek waaye du woon loolu moo ko taxoon na ñëw sax si ngërëmal yàlla moo ko taxoon na ñëw xam ni ma ko ilaha illallah ji nga xam ne Cheikh Amadou Kra ci làmmiñu boppam du ma ko waxal loo xam ne ni du dëgg boobu bu ma ko naree def naa fàddu fi ma taxaw moo ko wax ñu koy dégg suñuy nopp mu ni laa ilaha illallah amee na ci loo xamante ne bii ab yonent sax mosu ko am te lu yow bëggam la xool leen quatre-vingt-un ba mën naa ni quatre-vingt-quatorze guddi àjjuma bu jot lu ëpp téeméeri nit nga ànd ak ñoom ginnaaw julli gee ba njël di sikar laa ilaha illallah ay milliards de fois la loolu te suñ borom nag wax dëgg yàlla lu ko waaye defal moo ko wax da lay fay waaye du la fay benn de neuf la la ciy dolli muy dix mu fay la sëñ Abdou Khoudous maa ngi ñee moo ne sëñ Touba baax na baax goo xam ne yërmande ji ko yàlla defal moom boo ko defalee benn dana la ci dolli juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent muy téeméer loolu Cheikh Amadou Kara mooy dooree ni moo ma ko nii tey kon imagine ngeen ñaata ñaata nombre de fois lay doon kon ci laa ilaha illallah ñu jógee fa mu ñëw ci Muhammadu Rasulullah yi am na xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttaliku am na màggal gu muy firi li Baye Ousmane waxoon ne ku dul yàlla doo yonent bi doo soxna baayam sax nga gis soxnaam tere ko loolu na ci soxna yi jàngee bu baax a baax a baax a baax. bu dee da ngeen a ñëw ci kër gi da ngeen di wujje wala da déedéet da ngeen a ànd di sàkku si ngërëmal yàlla ndax da ngeen di liggéeyal yàlla ab say loolu la di ñoom nag nañu meloon buñ ni rek loolu mënatula am damay dégg ñu naan ay ab sëñ moor anta sali moom mënatuta am yow kay fexeel ba doon ab soxna jaara rek wan kat yi dañ koy faral di wax jigéen rek moo mën a waat ne dinaa jóg wàllu waaye du góor jigéen lu mu baax baax baax baax baax ak lu borom kërëm Yes Yes Yes Yes Yes yes yes bu lo dana am ku bax lo sama mbokk yi soxna yi daal koy dimbali tay ñaan suñu borom taas ñu ci barke soxna jaaree Touba liggey bi nga ya xamanteni bi liggey liggéeyal na ko yàlla ba ngërëmee ko noné ba lenn ci ngërëm li ñu mën ci tuddu ki nga xamanteni bi moy le sauveur de l'humanité ni ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di woowee liggéey boobu yaa xol di fóot di set wicc da do yow do comprendre da ngay nekk ci li jékki-jékki soof nag xeetu soofin woo xam ne mënoo koo expliquer te doo ko tey noonu la defaree ak ruux bi ci jógee fu ñëw ci ku dul Serigne Touba gi mooy jërëjëf Serigne Touba gi dafa dem nag ba dafa kanaal étape yooyu yëpp da koo romb ne ca kaw moo tax mu naan doy na sëkk làkkuwaay doy na sëkk wéeruwaay du ma fexe ne ku tedd ki dina sowee ñëpp dana sowee ba tey dàq ji nit ñi ñuy dugg seen i néeg mu dàq ci leen fekk leen ci néeg ñu dugg ci suuf lal bi mu jàpp seen tànk di leen génne moo ko waxoon foofu jamono jooju lañ toll moo tax muy demee nii muy demee mooy laa ilaaha illallaah mu ni ku dul yàlla ji mooy laa ilaaha illallaah ji ma nekkoon bi may doog a ñëw ku dul yonent bi mooy Muhammad rasulillahi ñaata eer ngeen ci dégg ñaata xam ne damaa xañ balaa bii rek sànq maa ngi ci maa ngi ciy joxe benn xisa ci kanamu sëñ Mame Balla gaa ñi am ko ma nettali woon ci année quatre vingt dix yi boori quatre vingt quinze jamonoy waaxi ji xam boobu ñoom manjaay ñoo wàcc daje buñ doon def HLM mbokki taalibe yi di sikkar air boobu allahuma salli ala sayyidina muhammadin xadada maa fi am bila salaatan daayimatan bi dawaami mulkillah rek am góor bu fëgg bunta ñëw dégg naa rocc micro yi ne leen fan ngeen déggee lii ñu ne ko suñu sëriñ moo ñu ko jox mu leen lu ngeen ko liggéeyal ba mu jox leen salaatu bi ñoo ñu ko dara dañu ko jox rek keneen ñu koy ak ñu koy si kar gi ne li aduna gi ci biir ci lay def ci lay dindi té te tarbiyo naa ko ñaar fukki at ak nangam ngir ñu doog mako jox jox ma séeru bi mom daf ñu ko jox gratos li gone man gratos gratuit moy li ma wax sànq fekk ñu ci suñu mbon di dimbali di top di ñu ijji ay jim ra nangam ak nangam té ay dañ ko doog waye ku tedd ci jàppul seen jëbël ndax jëfé wuñ ko ñu xana jaamu ci Fatou Sadi xel mu lan la ci ku tedd ci wax te li gaar boo jooju moo bari léegi ci suñu jamono ji moo tax ku fiis na Serigne Fallou waxoon rek de jamono ngi ñëw joo xam ne ku ci am sa taalibe na nga ko denc ca roog seen roog seen mooy bëñ ba gën a sori ca biir gémmiñ ñun nag suñ bos waxuñu sax roog seen suñu ngëm suñu taalibe dama koo sex dencuñ ko fii dañ koo wan mu jàll di daw ci suñu deret kenn mënuñoo dévier ci Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ak koo mën a doon ma ne ma ne ak koo mën a doon laa la ak koo mën a doon xoolal jëriñ li mu fi wax léegi doon reetaan nee fekkoon fee ko kaay doon Macky moom doon xajul chef. bu génne gi génne seen xel ci ñun pour lan la dañoo xam ne mënuluñ ñu yotaan te li ci xorom mooy bu Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni newoon nii bu Cheikh nii ñu féete nii bu nii ñu mel ni mosu ñoo ne. xale yi am luñ jamono ji mooy diw rek la ñuy ñun Cheikh ak coow waaw yooyu sëñ Axmad koy def sëñ Baye sëñ Axmad xam naa daal dugg ci man léegi génnaat moo tax lii dina ma ci tooj bu baax maanaam sànq Cheikh naa dafa wax lu garaaw jori dafa wax lu yéeme yéeme fi ma man bu ni may ni may xaaroo daa xorom bu ci bu ma ci yàlla xiiree damay jooy bu ma ci yàlla xiiree damay reetaan waaye sànq damaa ree ba keeku ndax damaa xam ni ñun jaratul ñuy taxaw fenn fenn fenn di wax di expliquer li ñu laaj waa ji luy sa liggéey mu naan damay war a di expliquer non sérieux jaratul ñuy taxaw fenn di expliquer kenn lenn wax naa ko sant ñoom xaalis bi ñuy waxtaan kër ga man leen Cheikh Ahmadou Kara nii nit ñi xam bi internet xewee léegi boo boo duggee ci jëm koo gëstu ci nga naan lee man nekkee mosuma xam ci kii dara. billahi dëgg fekk boobu ñuy mu ñuy waxtaan euh, ma koy tuddal ci xaside yi bayit yi nga xamante ne bi ñuy jàng xaside bu ñu xamee ne waa kër sëñ bi nga buñ demee ba dal ci sax seen xel day dem ci ne Cheikh Amadou Kara wayoon na xaside bi ñu tourné di la xool ak yu mel noonu yu sew yooyu. wax nga ko léegi naka la am murit mën a jàkkaarloo kilifa gi. nan ko nangam ak nangam ak nangam baatin bi nangam waaye saayir buñ ko tegee ci saayir rek yow ki ngay waxal moo la mag kon moo la gën dund fi mu dem demoo fa kon moo la ëpp expérience li mu fekkee fekkeewu ko kon moo la ëpp culture générale gën laa àgg ci suñu borom naka ngay mën a maîtriser lu dul maîtriser caaxaan baaxul mun na moo la ëpp information lan moo tax suñu ngëm yi ñu bëgg ñu koo jëndloo yu ñàkk fayda moom jaakara point ñun jaakara point mais ab murit laa wax ab murit moo koy lijjantee sa bopp wala nga ne ko jébbal naa sama bopp àllaaxira kese àdduna nga xool noo ci def mais mënoo ne jébbal naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira ba pare di teg sekk c'est-à-dire du dëgg ci yow ku teg ci ba am ku ñëwee ci moom di ko jébbal ne ko jébbal naa la sama bopp